li ñu tax a daje li ñu tax a mooy jikko yi moo feebar jikko yi nag bi mu feebaree léegi lan la ñuy def ba mën a defaru mënuñoo defaru te jikko yi defaruwul Sénégal mënu la dem te jikko yi baaxul Sénégal mënu la dem te jikko yi baaxul يلا بمي تقو يرنتي بدفقلي وإنك لعلى خلق العظيم معنى لما بند يا تجن برسك يا تجن تكو مبي معنى بقنا جفا بريخو جرون جرون ياري يفرق yi nga xam ne bu ñu ko réparé réew mi dem suñu ko defaree bas réew mi dem mu ne bokk na ci mooy wax lu dul dëgg ala wa qawlu suur wa shahadatu suur mais te li garaaw li garaaw li garaaw wax lu dul dëgg li muy garaaw yëpp seede lu dul dëgg ko raw ndax wax lu dul dëgg tas na sëy tas na xarit tas na mbokk tas na parti tas na daayira tas na association benn message boo xam ne wóor na la ni waxuloo dëgg nga takkal ko sa nawle ko lan moo ko waral mooy dinaa wax lu dul dëgg ngir ñu jox ma alal benn waay dafa ñëw pour ma wax la seede lu dul dëgg ma maanaam ni ko nit ñi ñemee benn waay di xuloo benn waay rek ñuy xëccoo benn machine maxtaar ni maa moom machine bi ngañ ñi ko maa moom machine bi maxtaar ni maa moom machine bi ngañ ñi ko maa moom machine bi coow li bëri lool alaaji Cheikh Samb ñëw di leen waaw tey ngeen a déggoo rek wax wax ñu dëgër ñu gëstu rek benn waay jóge fee ni ak sañse ba ak jëmm ju taaru ja ñu yaakaar ko ni ay eh, góor gi de mën na ci dara ñu ni ko bàyyi gaay yàgg nga ci dëkk bi ñii seen coow li kenn mënu koo régler parce que machine bi ñuy xëccoo مختار نينا موكو موم شيخ واخنا با تاي نغن نينا موكو موم باي ديمبال لي نيغا اتيل ني ني غور جي خول مختار رك مو نيكو موني بالله والله تالله ماشين بي مختار كو موم يري بي ما سول ماشين بي كو نيو تا مختار كو نيو تا امنا نيتي ات cheikh ni way ngañ bàyyil machine u jàmbur mu ne loo wax mu ne machine bii maxtaara ko moom ndax yére bi ma sol maxtaara ko ñëw ñu ne ko paa nga ñu machine wal ñuy xëccoo ah. machine wal seeda mu ne ñeme yàlla rek ñeme yàlla rek ah li ma la bëgg a wax mooy maanaam nit ñi yegg nañu su ñeme yàlla seede lu ñaaw ci góor te xamaluñu ko dara te nag baal ma baal ma gis nga ko defaru xeexal sa xol ba kañaan génn ci alxasadu yaakulu alxasanaati kama taakulu naarul xatab billahi yonente bi ko wax ah billahi yonente bi ko wax yonente bi nee na kañaan kañaan kañaan dafay lett yiw comme ni safara di def mbopp fekk xeexuloo doo dem parce que boo ñaanee ku ñu fal nga feebar ku xëy am loo amul nga feebar ku xëy sol mbubb mu rafet nga feebar ku xëy jënd oto bu rafet nga feebar lu gën a garaw ci àdduna bi amul bas ci bas ci bas maa ngi lay seedeel li gën a garaaw li gën a garaaw mooy koo xam ne lu mu wax ñu ne mbaa du waxu diw tàncree yonent bi nee na al muminu laa yaktisib yonent bi nee na ku jullit la amuloo droit di fen jullit du fen gis nga damay faral di wax ni Euh, ñu baal ma gis nga Sénégal li fi baax moo ëpp li fi baax moo ëpp waaye duñ ko gis il faut nga tukki jaxasoog àdduna bi xam li Sénégal fi mu toll fan la waaye ko xamul lu xew xamoo du xew dañ diggatul na xëy na waaw kay ay ah, yéen a organisé waaw nii la kañ nii la yéen a waaw kañ dana yàlla barkeel waaw kañ yi xam nga lu ci ne koy wàññi rek dafa damaa gàmmu ji Angleterre ma ñëw rek benn waay nuyu ma ni ma sëriñ bi manu ko la béykat mu ni ma daaw sunu gàmmu ji dafa yàqu manu ko lu ko yàqu mu ni gars yi dañu doon jaabante waaye ren réglé naa ko damaa tëj tànti bépp kenn du jóg ma ni ko def nga musiba dawal dawal dawal dawal ma ni ko dawal ni ko dawal doom dawal ma ni ko waaw kenn diritu na xëy na dawal doom ma ni ko ëpp naa def dangaa daanu dawal dawal wàññiwul dara doom dawal da ngay yàq rek Cees laa dëkk wax ni Thiès laa dëkk te Sénégal la ñu dàqal fépp Sénégal moo ñu dàqal fépp ci àdduna bi fu ne mën na yàlla ñu dogal ñu fay dem waaye Sénégal la ñu dàqal fépp dama dem ak benn waay mag ñu ak ba pare seen vol am problème quatre ci gannaaw ñu am retard seen seen jiitu wooma ñi ma tee nga maa defal benn waxtaan

cinquante cinq ans la wax de. six mois vingt jours loolu la wax dégg ngeen. moo waral dama ne waaj mais daaba ji boo fi julli ak téeméeri junni dégg ngeen ne daal sa toog bu ngeen jullee Sénégal am ci set. waaraa te ba daaleel waa ji ne ma sëñ bi dañoo doyoon ci téeméeri junni yi dañoo bëgg ñibbi. la nu soxla maanaam li ma bëgg a wax mooy yëg-yëg gi ak cofeel yi nga xam ni am nañu ko ngir suñu réew kon Sénégal Sénégal rek la ñu am